ñu taxaw ak kenn ci jëwriñ yi muy maam Thierno Fall mu bokk si maamoo daara gi ñu yàgg ànd ñoom ñaar mu nekk jëwriñu kuréel gi kon suñ sëñ euh, maam Thierno Fall li laaj mooy ndogo yi nga xam ne sëñ Mamour Mbacke moo ko euh, taxawal fii ci kër Cheikh nga yàgg na ko amal euh, lan nga ciy wax ginnaaw bi nga xam ne nuyu nga. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bi nuyoo jëwriñ ji muy sëñ Mamour Mbacke ak sëñ Mouhamadal ñu ngi nuyuwaat mbokk taali bi nga xam ne ñoom lañ àndal liggéey bi muy waa ahlu kafe te buñ ci tuddee sëñ Fallou Ndiaye ak seen Bassirou tudd nañ ñëpp mu mel ne liggéey bi moom daana mën naa ne ñu ngi ci uh, romb nañ fukkeelu édition bi kon loolu moom yaakaar na ak yokkute la ak li naan ak sax ak constance te liggéey bi loolu rek moo ci am solo lépp looy def rek feex mu sax te gis nañ ne wax dëgg yàlla sax googu uh, mi ngi ci ñu ànd koog jëwriñ ñi xam ne nag moo amoon initiative bi muy uh, sëñ Mamoon Bakke ñu xam ne idée boo xam ne idée bu noble la idée bu rafet la ndax bu dul dara jox nit ñam mu xéwlu kenn xamul lu mu toll ci teebar rawatina nag mu tombeek weer woo xam ne weeru euh, yërmande la weeru barka la muy weeru koor muy chehru ramadan loolu yaakaar naa wax dëgg yàlla buñ noon buñ doon wax ne le euh, cent pour cent lay doon lii huit pour cent huit cent pour cent lay doon ndax dafa tombe ci weeru koor kon yaakaar naa euh, sëñ bi yàgg koo taxaw mu doon loo xam ne nag wax dëgg yàlla da ciy ànd ak mbokk taalib bi yëpp xam na képp koo xam ne bëgg nga lu baax en même temps xam na wax dëgg yàlla moom mooy jëriñ ji dañ ci ànd ak ñoom ndax moom mooy lépp daara ji nag wax dëgg yàlla yàlla nañu ànd ceeg moom dañ ci ànd ak tamit wax dëgg yàlla waa ëllu café ku ne xam ne ñooñ moom euh, kenn wax kenn kenn kenn nattabule seen seen seen seen seen seen seen bëgg ci sëriñ bi wax dëgg yàlla kon yaakaar naa mbir mi moom mbiru ëllu café la mbiru Miftahoul Sahada waaye mbiru sëñ Mamour kon yaakaar naa euh, ñu ngi koy ñaanal mu gën koo mën rek te yaakaar na lu baax moom képp koy def na nga am rafet njort xam ne li ngay def moom suñ borom dana la gën a wërsëgale nga koy gën di mën ndax kenn du def lu baax bu jëlee ci safaan la yaakaar naa loolu rek lañ ci lañ ci lañ ci lañ ci amoon kàddu yuñ ci wax ñaan tamit ñu fekk ko ay ay ati ati at te suñ borom tamit dolli ñu tawféex ba wax dëgg yàlla euh, ndog yi xëy na mënuñu ko méngale ak ndog yenn waaye tamit mu doon ndog yoo xam ne dañ koy def te yàlla tax waaye mu doon ndogu yoo xam ne tamit ndogu yu ràññeeku lay doon waaw loolu daal lañ ci amoon nañ ci wax jërëjëf waaw mbokk yi nga xam ne ñooy topp seen télévision Touba Allemagne TV ñu taxawoon kenn ci jëwriñ daara ji muy Mame Thierno Fall mu yëkkati ay kàddu jëmale ko ci ndogu yi waaye tamit jëmale ko ci jëwriñ bi nga xam ne mooy jëwriñ daara bi taw sant di sëñ Mamour kon baax Mame Thierno ci kàddu yi am solo yi kon mbokk yi ñu ñëwaat ci yéen ci li nga xam ne moom mooy ndogu sëñ Mamour Mbacke yi ñu amal fii ci Kër Cheikh mbokk yi ba tey yéen ñi topp seen télévision Touba Allemagne TV ñi ngi fii ba tey ci ndogu sëñ Mamour Mbacke yi nga xam ne mi ngi koy amal fii ci kër Cheikh Daara mi taw san ren muy dixième édition ñu taxaw ba tey kenn ki jëwriñ yi ñu koy wax Seydina Aliou Lambaye moom mu jugee ba Touba rek rek ngir ndogu yi kon euh, li ñuy laaj Seydina Aliou ginnaaw bi nga nuyoo mooy na nga gisee ndogu sëñ Mamour yi nga xam ne moom mi ngi koy amal fii ki daara yi kër Cheikh ansubillah bisimilah inna wali allah wa ma fi tawfiq alhamdulilah jërëjëf Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul jaaram maam Cheikh Ibrahima Fall lamp dajëpp gi janjërak joor ki wee ko wëli gi toxaram bambaan gi borom jaam rusi badoole ori faraxata tàññi gi lapsoli l'inconditionnel l'incommensurable multidimensionnel multifacette Mame Cheikh Ibrahima Fall jaajëf ñi ngi siyaare bu baax jëwriñ bi seen basiiru si kàddu yi nga ñëw jotale euh, ngir ñu mën a béral sun ak cant ak sun ak tawfeex ak sun ak seede si bés bii nga xam ne yàlla defal nañ ñu tawfeex ba bis bi nga xamante ne moom lañ ko njëkk a def di koy xalaat di koy nas euh, man la woon ak Baye Sarr ak Ahmadou Bamba Sall Euh, fekk ñu ndogu nii ba pare ñu toog nii si bitigu Ibrahima bi euh, foofu lañ ko njëkk a nase bi amee xalaat bi ñu ne nan dem gaaral ko sëñ Mamor Mbacke ñu ànd ñun ñett dem wax ko sëñ Mamor mu rafetlu ko bu baax ba pare ñaanal ñu si ne ànd na kook ñun ndax taw feexe la nga xam ne kon loolu mbir mi euh, dafa doon la nga xam bu ñëwaatee ba dixième édition mu nekk fukki at ñu ñu teewee ko si anam yu gën a kawe yin doon xalaat yëpp ñun loolu ak sant la ak sant la ngir maanaam xam nañ ne peut-être loolu faaw ab tàmbali am waaye la koy ñoŋal ak la koy euh, tax taaral ko ba mu egg fa mu war a egg ñun jàpp nañ ne sëriñ bi la te sëriñ bi nag dimbali ñunuñu ba loolu mën nañ ko ndamoo bu ñu neexee mën nañ koo mbégteewoo bu ñu neexee waaye dañ koy def cant ndax cant googu noonu mooy li gën si ñun mooy li gën si taalibe yi nga xamante ni ñooy ñëw nekk ay royuwaay si suñ jëmm yi ngir maanaam lii nii amaana bu ñu waxee ne ban koy tàmbali xëy na amutoon empleur bii nii ban koy tàmbali xëy na nit ñi meluñoon nii ban koy tàmbali xëy na xëy na donc tey jii bu ñu ñëwaatee fekk fi mbooloo mu toll nii ñoo xam ne am na ñi nga xam ne jóge nañ tuubaa ñi jóge dakaar ñi jóge Kaolack ñuy jógee ci biir euh, kër euh, quartier yi kër euh, njaareem ñëw ngir maanaam jàpp si liggéey bi ngir ñëw jàpp si si ci mbégte mi loolu ñun dañ ciy sant Serigne Touba Cheikh Ibrahima Fall ndax amaana ban koy def xëy na ñun ban koy njëkk a def suñ tëddoon du du man du mën a nekk waaye tey gis ñëw naa gis lépp taar bu ma ñëwee bu ma ñëwut sama présence sama absence lañ yemale du tere Serigne bi moom mi ngi wéyal te loolu nag day day firndeel rek ne li ñuy wax ne sëriñ bi amul tànk ginnaaw tànk kanam la am kon sant nañ si bu baax a baax a baax a baax ji leen si ñaanal nag seen taxawaay yéen ñi nga xamante ni ban fi génnee tamit yéen yéen a ko ŋànk di koy saytu yaakaar naa ren ji euh, taxawaay bi ma si am tey tey ñëw teewe ko munta ñàkk ndax dama ne depuis 2013 yaakaar naa mosuma ñëwaatuma ci bi biñ ko defee ba pare ñëwaatuma fi donc tey bu doon a deux minute la dama koy ñëw def si après ma retourné waat dem si liggéey bi nga xam ne ab wéyale rek lay doon illimité barke Cheikh Ibra ah jërëjëf kon mu mel ne kooku mooy Seydina Aliou Lambaye moom muy kenn ci jëwriñ ñi daara ji comme ni mu ko waxee ci tàmbali gi ci ñoom ci seen xel la woon ba nii ba nii mu ñëwee ci at yi nga xam ne wax na mbégte mi ñu ci ànd ak yaatu gi ci yaatu ñu yaatu yëpp rek kon moom ñu ko koy jaajëfal baax a baax kon mbokk yi teewlu seen Touba Allemagne TV ñu ngi woon fii ci ndogu Serigne Mamour yi kon ñu demaat ci beneen jëwriñ yi ba yéen ñi nga xam ne yéenay euh, topp seen télévision bii di Touba Allemagne TV ba tey ñu ngi fii ci ndogu Serigne Mamour Mbacke yi ñuy amal fii ci euh, kër Cheikh daal mi taw sanda ba tey ñu taxaw ak ñenn ci jëwriñ yi ku ci mel ne jëwriñ galas nga xam ne liggéey bi lu ci bëree bari du ci da ciy déggoo sëriñ bi saa su nekk ak jëriñ soxna Njaay ba mi nga xam ne moom mooy jëriñ soxna euh, daara mi taw sanda kon fii njëkkee galas ginnaaw bi nga xam ne nuyoo nañ ndax nga gisee ndogu suñu Mamour yi nga xamante ni bi amal na ko ren fii ci euh, kër Cheikh euh, bisimillah barki maam Cheikh Rafal ñu ngi siyaare waat ñëpp di siyaar bu baax mbokku taalibe yëpp nag waaw di am mbégte loolu saay su nekk rek tey siyaare bu baax suñu jëwriñi tamit sëriñ Mamour Mbacke sëriñ Dan Mbacke ak mbooleem ñu mu ko àndal ay rakam di wax ne rek bis bi moom Euh, bisu sant la rek ak euh, jàngat ak jaayantewaat loolu moom dañ koy wax saay su nekk ndax euh, bis bi moom képp ku xool xam ni bisu mbégte la waaye bisu soññee la si mbokku taalibe yi ndax bu ñu demee ba xam ne sunu ñi sant Mbàkke ñooy taxaw bis bii nii loolu ab rogukaay la si képp ku xam ne rek yaa ngi dox si kaw suuf. waaw kon ba tey kooku mooy jëwriñ sëñ Fallou nga xam ne ni ma ko waxee kenn la si jëwriñ yi daara ji woo di ànd ak sëñ Mamour saa su nekk ci liggéey bi ni mu ko waxee leer na sëriñ Mamor mi sant Mbàkke di joxe ay ndagu kon jàngal la ci mbokk bi bu nekk day ñëw ci jëriñ soxna Njaay ba liggéey bi kenn ku ne xam na ne defar ay ndogu yombul rawatina ci weeru koor tàngoor bi nii euh, ban jàngat nga am ci liggéey bi ak wala liggéey bi ndax lépp mat na wala wala wala moo manqué ahange bilaay bisimilah maa ngi ziar di jiital ci ziar bi sëñ Mamoor ak sëñ Mouhamadan ah di di santaar rek doolee sant rek di xam ne bés bi jàngat la rek Euh, chaque année ñu ngi koy yokk di def rek xan ren ñu gisaat ne daanaka lépp mate na te taxaw nañ te soxna yi daanaka matale nañ lépp lépp daal incha allah ñu ngi koy matale ci ci lépp daal yemb na moom. waaw allah jëriñ euh, ba tey euh, comme jiite ay soxna kenn ku ne xam na ne yombul say mbokk jigéen rawatina nga maasee ñoom jiite leen ndax jigéen ñi yomb nañoo jiite ndax li nga leen digal ñu ngi koy def wala wala wala wala defuñu ko. ah soxna yi de moom wax fa dëgg fa yàlla moom gisuma uh, luñ luñ tële moom lépp loo leen jiital moom incha allah dinañ ci def taf taf passé fa tawfeex rek def liggéey bi yëpp dinañ ko matale comme ni mu waree dinañ ko def ba mu jaar yoon macha allah moom sant nañ leen bu baax. macha allah jërëjëf kon ba tey dañuy ñëwaat ci Sëñ Fallou ba tey uh, ndogu yi mm, mën nax ndax mën nañoo xam lan ak lan la ñuy togg ngir fa yéene ko jëmale fee ci hôpital ak prison. ah ndogu de dañ naan macha allah rek ak xam ni xéwal yi moom yaatu na loolu ci bisu tey bi ndax euh, li naan yokkute day am saay su nekk ndax daaw defoon nañ euh, li xam ne mooy euh, ñett mbana petit pois teg si tamit ñaari mbana ceebu jën waaye ren tamit kenn ku nekk na xam ne rek yokk nañ si yeneen ñett yoo xam ne si petit pois petit pois bi la kon muy juróom benn mbana petit pois ak ñaari mbana yoo xam ne ceebu jën la loolu lépp tamit ak leneen lu xam ne mi ngi siy topp lu mel ni waa collation lu mel ni yu sedd yeeg ndox ak lépp rek lu mënti lim ak café lépp loo xam ne xeetoonoo bisu ndogu waaw macha allah kon ñi ngi jaajëfal ñaari jëwriñ yooyu jëwriñ Sëñ Fallou Ndiaye ak jëwriñ Soxna Ndiaye ba ci kaddu yi am solo yi nga xam ne yëkkati nañ ko jëmale ko ci ndog yi kon ñu ngi leen jaajëfal bu baax a baax kon mbokk yi doon topp seen euh, la ñu taal bi incha allah jërë ngeen jëf Touba Allemagne mooy chaîne bi nu mënul ñàkk waaw mooy chaîne bi xarañ lool ci liggéeyub sëriñ bi te gëstu dawal YouTube nga bind Touba Allemagne te abonné bés cloche notification bi ngir mën a jot